biotox anti-moustique mooy aar mag ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy pi ci rido ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé daleen ak jàmm Sénégal li muy lem bëri na lool waaye lu ëpp ci population bi xamuñu yan façon ngi lem la am loolee tax ñu fas yéene ànd ak professeur Kady Diatta di enseignante ci botanique ak cryptographie nekk it ku xam-xamam màcc ci wàllum mélissopalinologie mu nar ñoo gëna xamle ak façon ngi lem yu ñuy produire fii ci réew mi. C'est une science qui permet de caractériser les miels. myosopalinologie ab science la bu ñuy jàppale ñu mën a ràññatle yan façon yi lem lañu am xam nga ni Sénégal day produire lim gu takku ci lem waaye jafe na nit ñi ñu mën a xam gi mooy ban lem ak bee mooy ban lem gile science moo ñuy jàppale ba ñu mën a xam ba wax ni gile garab toute fleur la bii plante de solom la bii Ceiba pentandra la muy benteñe wala bii garabu mangrove la bile science bu ñu sukkandikoo ci moom dañuy mën a xam firnde yaqin ne bii ban façon lem la firnde googu ñu si am nag mooy tax ba ñuy mën a jël lem gi di ko yóbbu ca bitim réew ndax lu ëpp fii senegal dañ koy defar waaye xamuñu nuñ koy jëfandikoo mooy tax tamit ci wàllum cet gi ñu si am sax ay jafe-jafe bu ñu jëlee lem bi du suukar si dong lañ siy soxla moom li siy ruuse la ñuy jëlee ci garab gi ñuy woowe nectar moomee nag la lii di yamb bi ñëw di muccu noonee sax muy bàyyaale ay molécule yoo xamante ni day tax bàyyiwaale fa looy molécule yoo xamante ni polyphénol lañ koy woowe polyphénol googee nag li mu bëri ci lem gi lu baax la ndax day tax ba ñu mën a xeex lu jëm ci wàllum stress mu nekk googe stress nekk luy jural nit ñi feebar yu bare rawatina tey ji jabet lakteya barina lim gi barina na lool ci ay feebar yu mëna joxe waaye du polyphénol lekk lañuy nemmeeku ci lem yooyee am na tamit flavonoïd lu ñuy duppee tanin dinga fa gis vitamin yépp ba mu des vitamin bi ñuy duppee B12 bokk ci. Vous avez presque toutes les vitamines b la vitamine B12, vous le dans la gelée royale. Ça aussi, ce sont des produits de la ruche. Dans la gelée royale, vous avez toutes les vitamines. ki ngeen doon dégg moo di professeur Kadi Diatta nekk jàngalekat ci botanique ak cryptographie nekk koo xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu mélissopalinologie jaajëfal naa leen ci déglu bi dig daje ci beneen numéro.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 Bonjour. Le Sénégal produit beaucoup de miel, mais une bonne partie de la population ignore les types de miel et nous allons avec le professeur Kadidiata, enseignante en botanique et cryptographie, expert en mélissopalinologie, faire une large connaissance des types de miel produits au Sénégal. C'est une science qui permet de caractériser les miels Parce qu'en fait, au Sénégal, on produit beaucoup de miel, mais nous ne connaissons pas nos miels. Parce que pour chaque type de miel, avec euh, les plantes butinées pour, pour faire ce miel-là. Dans les plantes, donc, c'est une science qui permet d'identifier les pollens, c'est-à-dire les grains de pollen, dans le miel. Et c'est ce qui nous permet de dire que là, c'est une plante toute fleur, Là, c'est une plante de solom. Ça, c'est une plante de, de Seiba pentandra, c'est-à-dire le fromager. Ou bien, ça, c'est une plante de mangrove. Avicennia germinens. Euh, donc c'est une science qui nous permet de spécifier, de, de donner la typologie des miels. Et là c'est important parce que ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une plus-value commerciale parce que la plupart du temps nos miels donc euh, ont problème donc d'être euh, exportés parce que euh, il y a ce problème d'hygiène d'abord Et puis, euh, le fait qu'on ne connaît pas les, les miels qu'on produit. Par exemple, quand vous prenez le miel, ce n'est pas seulement le sucre que vous prenez. Parce que la plante qui est butinée se trouve dans, c'est-à-dire à ses racines dans le sol. Donc, cette plante-là puise des éléments minéraux dans le sol. Et puis, ce sont ces éléments minéraux qu'on va retrouver dans le nectar et que l'abeille prend au niveau de la plante. Donc, non seulement l'abeille, en butinant la plante, aura des éléments minéraux dans le, dans, au niveau euh, du miel, mais en même temps, il y aura aussi des molécules qui permettent de soigner, surtout les polyphénols. Donc, parce que moi, j'ai fait une étude sur euh, euh, le miel, et nos miels, euh, par rapport à cette étude, avaient des taux de polyphénol qui, sont, étaient très importants. Et ces taux de polyphénol sont des éléments, des substances qui permettent de lutter contre le stress oxydatif qui est à l'origine aujourd'hui de plusieurs maladies, notamment le diabète dont vous parlez, l'artérosclérose, vous avez de maladies qui sont causées par ce stress oxydatif. Et nos miels, donc, sont riches en cet élément-là. Parmi, parmi nos miels, il y a certains qui sont riches en cet élément dont je parle, c'est-à-dire les polyphénols. Ce n'est pas seulement des polyphénols, vous avez des flavonoïdes, vous avez des tanins, vous avez des vitamines, vous avez presque toutes les vitamines, sauf la vitamine B12. Et la vitamine B12, vous le trouvez dans la gelée royale. Ça aussi, ce sont de la ruche.